waaw préparation bi ñun dañoo teel ay ay ay minime lañ yor quoi maa yor petit cadet yi mais ay minime lañ yor quoi minime moo tax ma teel a anticiper quoi teel nañ def hivernal xam nga teel nañ def hivernal pour préparer compétition yi. waaw pare nañ pour jël loolu moo tax sax pour tamit euh, euh, fi ñu jëm yombul quoi parce que ay mag lañ fay fekk ñoom ay xale lañu aussi moo tax ma teel a anticiper teel pour ñu teel a miin compétition yi pour bu ñu fa demee vraiment li leen sant ñu bokk mu ngi ko def. pare nañu. physiquement tamit aussi paré nañu parce que ñu liggéey ci aspect yépp ci aspect technique bi aspect physique bi tactique bi yépp ñu ci travailler quoi. championnat bi semaine bi la waron démarrer le 24 bi la waron démarrer mais problème licence motax quoi le gars ñu ko pousse ba le 26 quoi la war démarrer quoi. senior yi bu ñu joué xam ay ñaari match ñetti match cadets dañu jouer wala junior yi après cadets yi. parcours bi riche na richeul aussi def na ñetti final ak ñetti final coupe du Sénégal ak 5 euh, quart finale play-off ma leen di jox rek mooy ñu gën a góorgóorlu quoi xam ne football bi yaatu na yaatu boo xam ne kenn moomu ko quoi waaye li may tëjee di di ñëpp rek di la remercier tamit aussi xam nga di wax tamit aussi tamit ñëpp ñëw jàppale AS Malika parce que compétition parce que ñetti ñëw Malika yëpp ñëw jàpp si quoi waa Sisi euh, euh, préparation bi euh, Euh, yàgg na nag euh, depuis euh, terrain cité après ci la ñu doog kii kii proposé pour ñu ñëw fii ci ci stade bi di fi entraîné donc euh, ñu ngi def ay jéego ak xale yi euh, di leen tàggat bu baax a baax a baax a baax di di yaakaar ne nekk euh, dina baax quoi. ndaxte ñu ngi ñëw ndànk ndank ci surtout ci côté junior bi ñu ngi ñëw ndànk-ndànk dañoo xaw na yéex a démarrer rek mais mais instant yi xale yi ñu ngi ñëw ndànk-ndànk di di am tuuti kii adaptation bon je pense que di di di dinañu mun a. atteindre le euh, niveau bi quoi. waa si si waa si si am na kii kii am amélioration euh, ci côté ci côté physique bi côté aspect tactique technique bi parce que boo c'est tamit qui euh, junior yi junior yi junior yi ñëw ren presque qui presque ay nouveau lañ. Hein, presque euh, pour moitié bi presque un nouveau lañ donc euh, peut-être que nous ñoom mos ñu jouer euh, championnat donc c'est c'est leur première année dina xaw a métier pour ñu mëna a ñu ñu rythme rythme qui science d'entraînement pour pour préparer le pour championnat parce que championnat ak nawetaan bokul donc niveau yi bokul donc niveau bi ngay ah, bi am pour pour pour mëna mëna mun sen au niveau des matchs Euh, donc euh, dafa laaj euh, beaucoup plus de résistance ci ñoom ñu gën a pare physiquement ci ci côté tactique technique bi waaw mais ñu ñu ngi ciy def ay jéego ñoom ñu ngi ñëw ndànk-ndànk parce que ay nouveau lañ donc ñu ngi am adaptation ndànk-ndànk di ñëw quoi. waaw objectif bi yàgg naa waaw objectif bi bi ñu proposé yàgg na yàgg na trop mooy maanaam. Euh, qui c'est pas une une question que dañuy participer euh, dañuy dem participation que comme ça donc dañuy dem pour pour pour pour compétir ah gagner gagner coupe bi. Euh, donc donc loolu moy loolu moy suñu premier objectif. waaw euh, bon euh, li li ñuy conseillé li ñuy conseillé jeunes joueurs parce parce que parce que bo seetloo fi Malika vraiment il y a du talent amna talent amna amna talent bu extraordinaire fi Malika. waaw donc liñ leen liñ leen di conseiller moy ñu ñëw rejoindre AS Malika bu ko défé ñu ñu mun ñu ñun ñi nga xam ñu ñoo leen di tagat ñu ñu mën leen tagat duggal leen terrain ñu football nit ñi gis leen ñu bu ko défé ñu mun exploser sen talent donc loolu lañ leen di ñaax donc. ñu ngi leen di woo ñoom ñëpp euh, jeune talent yi nekk Malika ñu ñëw rejoindre AS Malika pour ñu mun a ñu mun a wane seen bopp euh, ci ci